publicité sur Tiaroy Info TV. dal ak jam sen entreprise 3e menuiserie métallique Mansour da ngeen a bëgg ay bunt waaw fer mu di métallique aluminium wala sax ay inox jege leen ni ñun waa menuiserie métallique Mansour ñu defalal leen ay design yu muccu ayib yaay tànn sa bu la neex waaw waaw si mu lay neex mën ngaa ñëwit def sab commande design ñu defaral la ko ca na mu gën a muccee ayib dégg leen ma rek seen nopp ma wax leen lu ci dàkkati bëgg ay rampante escalier ñu gën ko xam ci garde fou chambre à coucher mini salon wala sax nag ay plateau télévision ñun waa entreprise troisième loolee lépp dañ koy defar ak defarina gu mucc ay wax naa leen ko ca ba muy teel yéenay tànn seen bu leen neex menuiserie métallique Mansour benn la fi ña nga féete sa caaro yi tali jàllo si suufu pont bi janloog kër sër yi boo ñu bëggee jot wala nga bëgg am ay information sunu entreprise bi di menuiserie métallique Mansour mën gagnant jot 404 83 94 Walassar 677 975 75 95 menuiserie métallique Mansour la qualité notre force. xool ak xel mais tax mënuñu la fàtte. mënuñu fàtte reeju neex ca àjja mam ja nañu ko yàlla sàmmal tabal ko àjja mam ja. dem nag dañoo fi des war a bay ci tool wi mën nga jóg ci bët yi waaye da mës a jóg ci xol yi. ndax laa sax ci gémmiñ yi rest in peace buur ba ñaan yàlla mu tàbbi la ci firdaw séem. boo ko tey ñu wax ci yow lu rafet di la tàgg sa jëf yu baax yi nga fi def ba tey suñu daa màgg. alhamdulilah baat bu njëkk baat gu mujjoo sant naa borom bi ñaan naa nga muccoo.

gëm sa bopp la rek ni nga. altine fukki fan ak ñaar ci juliet atum 2021 Don na bés bu caaro yi dootul fàtte ko waral lan la doom caaro yi nekkoon kenn ci caaro yi moo dëddu àdduna kookee di mamadou lamine pay gannaaw dëddu aduna boobee ñenn ci ay nyalem. ñaaleem dikkaat nañ def ay témoignage si jëmm joojee nga xamante ni caaro yi si boppam moo ñàkk waaw ñu ngi leen koy jaale yéen aussi mais avant ma tontu ci question boobu dama bëggoon remercier vraiment euh, direction wu Thiaroye Info ci opportunité bii mu ñu may ñu mëna a waxtaan ci suñu waajooju nga xam ne kenn la woon ci ñun euh, Mamadou Lamine Paye man su ma koy résumer damay wax ne c'est le rassembleur par excellence ndax moom moo nekkoon nit koo xam ne amul woon sens interdit ci Thiaroye amul woon sens interdit ci mouvement associatif u euh, su ma su ma su ma su euh, ma ñemee trop damay wax né Mamadou Lamine Pay il faisait l'unanimité dans Tiaroy mu nekkoon nak vraiment nit ku exemplaire. Ah, lolu mom li ngeen ma laaj dina ci sawar tontu parce que Lamine nekkoon na jëm jo xamné euh jëmm la woon joo xam kenn la won woon euh, ku bax la woon ku am diiné la. bëgg njaboot la ku bëggoon ci aré gar ak li ko wër parce que mën naa ne di doon caaroy rek parce que li mu doon liggéey àdduna la doon liggéey la mu nekk koo xam ne doo ko gis mu mer Lamin bi su ma ko gis mu mer donc foo ko fekk vraiment mi kaf mi ngi ree waaw jàmbure donc loolu mom euh, xamna ko ci moom ah Lamine pay di wax deug yalla nit ku bax la nek doomu caaro yi yàgg caaro nek ancien président Mengo ancien président GAD nekkoon nit ku baxa baxa bax nit ku marqué famé marqué ay xaritam marqué caaro gar deug yalla nek nit ku baxa bax wa waaw rabbil alamin dañu sante yalla bu bax di wax inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna te moy ñun ñepp ci yalla lañu jóge won ci yalla lañu delu muhammad Lamine Pay mi may laaj moy kan euh xamna ne mom duma ci am sago mais mu nit ku bax mu nit ku yiw muy nit ku fonk doomu adama muy nit ku bari jamm muy nit koo xam ne tamit ku yéen ñëpp jàmm loolu yëpp nag li ko waral mooy di am gi mu am diine fonk na diineem fonk ay njabootam fonk ay wëllëreem fonk tamit ay xaritam fonk tamit képp koo xam ne yàlla boole na ak moom ñuy dund fii ci caaro yi ak liwar caaro yi Lamine daal dafa nekk nit koo xam ne daal damaa jàppoon ni dafa jaaroon ci mission di ko dox mission bi jeex na mu wuy ji boromam bàyyi ñu fi nag ay œuvre am ñu am ci njàngat bu baree bëri di ci wane dund ba keroog ñu koy fekki. <coughs> waaw dëgg la euh, lamin moom xam naa ni euh, ñu ci gën a jekk ci wax ci ci laa bokk ndax euh, lamin ñoo ngi ànd depuis 1976 ñoo ngi nekk di ànd muy ku bari jàmm nit ku social nit ku yàgg dimbale doomu aadama te kenn du ko yëg. Eh, man and nañu plus de 40 ans muy sama xarit di sama rak defo mo don dal bi mu dal fu mu fekk histoire fay ko fu mu fekk lu tang jël camion glace am sotti ci deug deug ku bax dee sigi len sen wal ñoko bok njabot gi ñoo bok njabote Lamine nit ko xamni ki wax deug yalla ña mu daan dimbali ñëpp sax ñooy génnaat tey di ko wax waaye wax dëgg yàlla def na lu baax def na lu rafet. waaw lamin Paye eh, dafa nekkoon nit koo xam ne suñu biir mun naa wax na yàlla du ko may ay qualité yu bare bari yoo xam ne jafe na ci doomu aadama eh, président liñ jëy pause ñëw na ci léegi am na yu mu ci relaté parce que Lamine Paye doon na rassemblé lamin pay boo xoolee. chaque jour nit ñi ñu ngi koy fréquenté eh, te te eh, képp ku am ay yitte saa yoo ko waxee moo ci man te du xeebal kenn soxlaam te dina taxawu nit ñi taxawaay boo xam ne vraiment yow sa bopp sax ak njort bi nga amoon ci moom bu ko gën a kawe sax ngay fekk ci Lamine pay noonu la ko yàlla bindee muy nit ku baax. gannaaw yooyu seede ci ki ñu mënoon jàpp nii moom mooy Lamine Paye ba tey ñenn si ñooñu dikkaat nañ si seenub diggante ak Lamine Paye moomee. waaw lamin suma xarit la woon eh, ndax Lamine dañoo xamante woon stade de Thiaroye yi ëpp na 15 ans mu nekkoon président commission sportive man ma nekk trésorier général stade de Thiaroye yi ñu nekk fa ànd fa liggéey bu mucc ay parce que stade de Thiaroye ñi nga xam ne ci équipe bu nawetaan ñu nekk ay dirigeant ñoom ñoo fay daje euh, bu ñu fa demee tamit ñu créé benn bureau ASC bu nekk nga am fa ay représentant mais Lamine foofu lañ commencé nekk ay waay mu nekk suma grand frère euh, vraiment mu nekk koo xam ne ku ko jege woon la ci euh, côté stade de Thiaroye ba yàlla dogal relation bi di continuer ba Grades juddu. waaw Mouhamed Lamine Paye suñu relation yàlla moo ko xam ndaxte yàlla lañ doon ànde daanaka ànd mi bu matul 40 ans it lu ko manqué du bari yàlla suñu ànd mu ngi jaarale bi ñu nekk ay tout tànk di yëngatu ci benn ASC bu tudd Mengo yàlla dogaloon nit Mengo boobu tamit lu baax ak yiw rek lañ ci bëggoon ngir suñu gox. yàlla dogal sama mag bu baax di sama cousin muy Abdoul Aziz jóob di mag ci moom moo taxoon ma xam Lamine yàlla dogal it ñu nekk nekk ci marché bi nekk di ci yëngu di tuur suñu ñax muy nit ku baax di mag ju raf baax mag ju ma yëg gu ma bëgg te itamit lépp lu mu yëkkati ci njabootam danaan woo leen alsaan Abdou Diop xam na loolu Habib Sall xam na loolu ba ci soxna Fatima Albatul mi nga xam ne mooy soxnaam xam na loolu ay domam buñ leen di takk euh, man maa koy taxaw bu di seeni warugar man maa koy taxaw bu dee am na lu ñu xew ci kër ga la ñuy dama leen wax seen papa alsan. Euh, ba ci sax ñaari dencante yi doom yi bu ñu amee problème seen jëkkër dañ la da leen di wax dañ leen ci papa alsan, man may lijjant may wax. Lamine bi mu gënee nekk xale dafa amoon ay xarit yu ñuy wax daaw da ñaan ma nga gamoon léegi di wax am di kunta di wax mu tar ñaan gañu na yalla nako yalla yeeram mu amon ku ñu wax Mamadou Gayel ñaa ñom ñep di nek ay wolere don ay morom a peu près di ñew di ma fréquenter mu fété marak ñim don andal di ñew ci man fété marak ak jarbat ah bañu don goné nak di ñew ci man e ma di leen jël ñi nek ak man ak samay xarit ma don wax na gaay ñi samay xalé lañu amul nit ko amul défaut lu la ci waay def bu leen dóor kenn ñëw leen wax ma ko wax dëgg yàlla ñu ñoo xam ne ñii eh, nekk na ak ñoom seen naqar doon moom Lamine Paye moomee ay seede di wone ni nekkoon na ko social li koy firnde moom mooy lépp lu doon ab organisation associative bu nekk foofu sa caaro yi doon na fexe rek ba mu jaar yoon ñii mu bokk ak Grades indi seede yooyee waaw d'abord dafa nekk dafa bokk ci ñeenti nit ñi nga xam ne ñoo tax Grades am ndax euh, Grades mu ngi commencé ci benn panel boo xam ne da doon dajale waa stade de Thiaroye yi nga xam ne ñoo doon génération 1997 donc moom mu bokkoon ci groupe bi nga xam ne ñoo ko initié woon euh, moom la woon bay Dieye Bamba Diaw ak Joza Amat Si bi nga xam ne moo nekk Espagne donc ñoom ñeent ñooñu. ci seen dajaloo boobu ci seen waxtaan boobu ñoo ko élargir ba ñëpp waa Thiaroye yëpp mun ci mun ci ñëw dugal seen loxo ba mu jur Grades Lamine pay nag nekkoon le trésorier général de Grades te ku wax trésorier général structure di nga wax xaalis te xaalis ku ne xam na ne ku ñu wóolu rek lañ koy dénk mu nekkoon nag nit ko xam ne kii non seulement dafa wóoroon mais dafa nekkoon ko xam ne kii dafa dogu woon ci li mu doon def c'est-à-dire chaque mission bu ñu ko mës a confier daf koy def jusqu'à la dernière lettre buñ ko li ko sant santoon kon mu nekkoon koo xam ne ki vraiment ku amoon solo la ci biir Grades te jàpp na ne pendant longtemps dinañu pleurer sa perte. waaw boo xoolee Lamine Paye maanaam moom mooy fondateur Grades moom ak Bamba Diaw ndax Grades idée bi moy regrouper tous les fils de Thiaroye d'ici et d'ailleurs Les xolé traditionnels village traditionnel la nit ñi dëkk fa mais au fur et à mesure du temps doomu Thiaroye yi fu ne dañ fa nekk ci il fallait ñu am plateforme bu regrouper ñu partager di discuter et jëm créer lo xamné dina impacter positivement Thiaroye xam nga loolu koo créer idée bu baax la par la suite nous avons ñu bokk ci ñi de fur et à mesure ba ñu mujj def association. bañ defee association ñu ne dañuy teg bureau xam nga ku dem ba nekk trésorier général association mooy am nga intégrité Lamine ñu jox ko poste boobu ndax caaroy gi boo xoolee ñu dénk lu leen keesu Grades jox ko lamin mu yor politique financière ba pare denc xaalis bi loolu mooy nit ku jub la woon nit ku baax la woon donc Lamine daal wax dëgg yàlla marqué ne nit ñi te joué na ci rôle bu am solo surtout ak diaspora bi te ñu nekk bitim réew bañ nañ ko aujourd'hui képp ko amoon looy def caara yi Lamine nga koy dénk wala mu joxel la ko ndax jubam wóoram ak baaxaayam. donc Grades moom Lamine rôle bu fi doon joué bari na trop muy man mu muy ci président bi muy ci adjoint trésorier bi parce que man mi man maay intendant Grades man maay intendant bi donc fàtte woon naa ko sans me présenté wu. mais maanaam da doon defare bëgguloon gis dara lu ñaaw fu mu yëg ne am na jafe-jafe dina ci dox te kenn du ko yëg ba régler ko problème bu gradis amoon ci biir sax ñun ñu xaw a am jaaxle wala yu deme noonu boo waxee mu ne la dinaa ko régler te ni mu koy waxee noonu la koy defee te kenn du ko yëg kenn du xam da ngay jékki problème bi décanté wu quoi donc mu nekkoon koo xam ne. ñun perte nañu ah, ñun waa Grades perte nañ Caaroy perte na ñun ñoo gën a perte. yeneen ci ay seede di wane ni Lamine Paye mii nekkul rek Grades la doon jëriñ waaye taxawaayam sa caaro yi moo gën a mucc ayib. waa Lamine de bu euh, représentant am si Caaroy moom lu rëy la lu yaatu la lu mat la lu matale la parce que dafa bëgg jàmm bu dee ci social mu ngi ci dox bu dee ci federe mu ngi ci dox. bu dee bëgg ñëpp aj am jàmm mu ngi ciy dox moo tax damay wax demu bii mboolem am di jàmm ak wëllëre yëpp war nañ ci am njàngat ba nekk benn te ñàkkam it du ko boole kenn lépp lu am bokk na ko njabootam bokk ko ak ay mbokkam bokk ko it ak waa caaro yi taxawu na caaro yi taxawee na yi muy doomu caaro bu diiñ euh, bëgg caaro it ba yàlla def li mu def ci moom kon nag Lamine demam bi nii rek la ma doon demee bett rek yóbbu kon yàlla mi ko yóbbu nag dañu ñaan yàlla yàlla na yàlla wutuñu ci moom te yàlla yeesal dem Lamine daal wax dëgg yàlla yàlla rek moo ko xam. waaw caaroy perte na. nit ku utile. ndax it Lamine boo xoolee nit ku communautaire la woon ndax li ma naan ku dem ba nangoo nekk président ay AIC ak charge yi mu laaj surtout moom dafa nekkoon président AIC Mengo nekkaat ko président AIC GAD xam nga loolu kon Lamine dafa transversaloon maanaam caaroy gépp ko moom donc yi ñàkk na nit koo xam ne amaat ko dina jafe. nit ku baax nit ko am solo ku bëgg a boole doomu aadama yi nit ko social wax dëgg Grades moom ñàkk na un des piliers te loolu ñëpp sentir nañ ko depuis ba mu demee ba tey. ba tey si jegeñaaleem yi ñu seeti woon dikkaat nañ indi ay seede yu rafet ci soxnaam si di faati ma Sow. mais di tëje rek euh, ci koo xam ne kii kenn la woon aussi ci Mamadou Lamine pay muy soxnaam di Fat Sow nga xam ne. lépp lu Lamine pay mës dugal loxoom dans le mouvement associatif jabar ji teg na ci loxo mieux encore lamin pay dafa am njaboot ay doom yoo xam ne tey ku leen gis naw leen ku leen gis bëgg leen a jur loolu nag dafa nekk liggéey bu am solo boo xam ne bi Fat Sow mi soxnaam moo ko def ci xale yi parce que ku ne xam na ne góor moom day xëy dem liggéeyi su wàccee bu amee grand place fa la jëm guddi lay ñëwaat ci kër donc doom yi suñu demee ba am benn yar bi ba leen gis naw leen respecté leen euh, jox leen cër c'est parce que Fatou Sow moo ci def liggéey bu am solo li tubaab di wax rek derrière chaque grand homme il toujours une très grande dame Fatou Sow moom gàcce ngalaama ñu ngi koy ñaanal nag mission bi nga xam ne moom la ko yàlla dénk mu ciy liggéey yàlla na ko ci yàlla may ndam lépp loo xam ne lii mébatoon na ko moom ak la Lamine Paye ci seen njaboot yàlla na ci yàlla def lu raw seen njot yàlla teg ci loolu. léegi daal di aussi di jaale famem di jaale madame Fatima Sow. di ko muñloo ak Ami pay saa fii nga xam ne buy wax ak moom sax doo sant ne doomam la ak njaboot gi yëpp daal ak xaritam yeeg àndandoo yi. waaw faatu kooku moom c'est ma su ma ko waxee jeexal na lépp faatu sama femme la ndax bi muy dugg suñu loxo. mu ngi am fukki ak ak juróom benn caatam mi tey sax boobu jamono caatam mee ko mag alors euh, Fatima <coughs> ci faat Sow ci turam dëgg-dëgg euh, man cëru papa la ma jox ak cëru yaay li ma lay wax nag euh, du lu ma du lu may jël faatu di ma ci neexal wala di ma ci fay weesu naa foofu cër bi mu ma jox laa leen di jox ndax keroog magul Lamine toog na foofu wax ni faat Sow musu ko boole ak Lamine olof nag danaan peccum liir bu neexee ndey jaa jàpp ca mbagg ya Fatou dafa ñëw jox ma kilif kilifteef mooy ni ma la ko waxee bu ndey ak bu bàyyi musuma tere Fatou Sow dara ni ko li mag lay ñaan nga bàyyi ko ma dellu si fekk mu defaat mu def ko. moom Lamine Paye nekkoon ko bëri jàmm lu dul jàmm jàmm gënaloon ko ko. ba taxoon na nekkoon na nga xamante ni fu mu nekk rek bëggoon na ñëpp di kaf di foo di ree. ñii ay seede la si ñu ko jege woon lool yenn ci ay anecdote yu ñu dund ak moom. Euh, dañu nekkoon man ak moom am di Moustapha mi ma lay wax. Gayel ñaa daaw da ñaan ak seeni xarit yu jigéen bërki démb ñëw nañu fii. ñu demoon géej alors comme léebu la danaan am habitude di wax naan moom day gétti ak yu mel noonu ndeke sawaay mënul feey bu ñu mu di dem géej dañuy yóbbu chambre à air ñi ci des moom ay jën lañu woon dañoo mënoon a feey wax dëgg yàlla gayel mënul woon feey Lamine mënul mais am di ak Daouda Niane dañu mënoon feey te samay xale lañu alors euh, bi ñu génnee di noppalu man Daouda Niane ak Amdi Moustapha gayel jël gayel ñaa ki ñu wax gayel ñaa jël chambre bi dugg ci ndox mi Lamine fekk ko fa ni ko jox ma chambre bi gayel ni ko duma la jox chambre bi ni mu koy dàqee gayel di daw bi gayel dawee yóbbaale chambre à air bi Lamine topp ko ndekee bi fi mu wàcc dafa nekk kàmb mu dugg ci kàmb gi gayel ni ko duma la jox chambre bi mu dawee moom itam daal di tiit nee na jën a ko laal wala boog am na lu ko laal mu bàyyi chambrère bi ma séen leen ma ne am di zone yi dañu bëri caaxaan ñun ñoo ngi nii doo génn sonn demal nga jàpp chambrère mu ne ma non man dama sonn gis lañ may woowee ñoom léegi nag ci diggante werante boobu ma jóg daw bi may dugg ci géej gi am am léegi dugg alors bi ñu dàqee chambrère bi ma jot chambrère bi léegi am di bi ma toppoon ma jël chambrère bi waññeeku boobu Lamine mi ngi ab quelque suñu wet koy romb fekk naan na ci ndox mi ba génnaat ba ci xonk cooy mu ne ma <laughs> daal mooy tax man la dañoo jege dëj bi ma tax bëgguma ko woon joxe mu ne ma ziiz bëti xonq mais njortuma dara ndeke boobu daan naan ba biir bi fees léegi bi may avancé ma ne am di génne wàll ko am di ni mu waaye du ma ko jox loxo dara waaye Diop ziiz man damaa sonn bi may dellu si ci moom ndeke duggaat na ci ndox mi bi mu génnee tey bi mu ne ma ziiz nag foofu xam naa ni caaxaan jeex na nag ma jox ko loxo <laughs> génnee ko li ci reetaanlu mooy dañ ko génn mu toog ci plage bi lu yàgg di géex rek bi mu jeexee ba sonn daal di jékki-jékki daal di yëngal bopp ne yàllaa ma bëgg ma ne ko ah, man bëgguma la. waaw euh, dafa am benn benn jour euh, stade de Thiaroye amoon match je ne me rappelle plus ndax Thiès la woon ou Diourbel en tout cas ñun ñoo demoon en déplacement. xam nga euh, football rek dans les régions ni muy demee da ngay ñëw gars yi di la napp di la indil ay jafe-jafe man nag jamono yooyu bien que maa ngi woon ci commission sportive bi mais nekkoon naa ci gars yi nga xam ne en tout cas su xeex masaan jot dama naa nekk ci euh, ci kanam bon loolu nag euh, affaire jeunesse la woon mais je me rappelle am na benn jour comme ni ma ko waxee xaw ma Thiès ou Diourbel ñu dem fa euh, ñuy histoire ak ay ak gars yi nekk foofu am koo xam ne kii man la bëggoon a dóor mais fekk juste Lamine di traversé mu dóor ko d'ailleurs dafa daan am habitude sax di ma wax ne ma. yow yaa tax may ma ma ma gis pour la première fois biddéewu bëccëg parce que nee na bi ko kurpeñ bi dalee xamatul fu mu nekk tellement kurpeñ <laughs> tellement kurpeñ bi dafa fooroon ba nga xam ne chaque fois bu ñu dajee bu ñuy rek loolu may wax naan ma yow daal copain amoo loo wax yow yaa tax ma mës a gis biddéewu bëccëg. donc waaw man anecdote bi ma am euh, mooy euh, su ma soxna euh, donc Lamine dafa am benn jour mën na ko yow yaa may takkali ñaareel. ndax yow laay sama nijaay léegi eh, bi ma ko waxee loolu sama soxna na ko ah nijaay ñu ngi lay dugal de te dégg naa ne yow la yaay dem di ñaari yi dama ñaari utali wujju lamit Paye na ko lent dinaa la ko xamal ba ma may sàngoo suuf moom jàppal ne du ma fekkee fooy amee wujju loolu moom daf ma marqué woon trop ba nga xam ne tellement que dama ko ne mais nijaay yow dangaa ngaa ragal soxna si mu ne maa yee ragal ko ndax soxna soo xam ne day dóoree kooku moom jar naa ragal. li ngay laaj nii dinaa ci sawar euh, tontu parce que Lamine nekk nañ stade de yi parce que euh, anne boobu caaro yi dafa yor équipe boo xam ne équipe bu mag la mu nekk président commission sportive alors ñoo am match contre Dagana championnat ah Dagana bon équipe boobu benn équipe mosul dem foofu di fanaan foofu ko ay Richard ngay dem pour dem foofu même équipe première division yi daawuñu ko dem Lamine la ñun. dagana la ñuy dem quoi biir dagana la ñuy dañuy dem quoi gars yi nu ko Lamine tey ñoo toog fi mun a waaye dañuy dem biir dagana. fanaani daal fanaani dañuy dem fanaani gañe leen dañ ñëw la euh, samedi ñu euh, paree rek Lamine daal ne entraîneur yi nañ def dem nañ dem xooli terrain bi quoi ñu ñëw ci terrain bi fekk foo waa dagane yi quoi ñu ne way yéen am ngeen fitan ah? yéen ngeen ban équipe moo mën a ñëw mi wax ngeen ñëw ci terrain bi te war a football ak ñun suba commencé fa di déconner dama ne lii dama ñëw dama ñëw xool leen rek yéen yéen taxu leen maa jóg ko yéen dama leen di gañe ak mbalang yi ko comme ça noonu ko daal di ree ree yoom ree yi muy def ko après ñu pare noonu ñëw ñëw mu ne gars yi ne dañ leen di gañe suba de ci suba si bu ñu préparé wu ñoom ñu ngi sangu nii ñun ñu ngi sangu nii quoi affaire bu doy waar ñu pare solo bi ñëw stade fekk na stade bi fees ma daal dama jékkee gis Lamine Faye yore gàddu saako xorom bu mokk téye ko nii quoi ñëw bu ci tasaat ma ne wala mi lii nag mun a togal foofu nga naan lii nag ci saako ko xorom bi quoi di tibb laa la di wis ñuy dem non non ci avant ñuy dugg ci biti ñu ñu raan yi di dugg mu jël xorom si di wis ak fit bi nag fit la am di téel xorom bi di tasaare ba saako bi jeex mu daal di dugal équipe bi mais gis nga non Lamine bu mu duggee ñëpp waaru ci yàlla équipe bi la dire ba dem woon a caractère boo xam ne te booy yi dañ ko déggaloon parce que nag ku la mënal sañal la day jiitu rek gos si topp ci ginnaaw yooyu benn côté keroog stade bi dafa fees ba ñëpp ne ci suuf mun ne ma grand ñii dee nañ ba pare <laughs> dee nañ ma ne ko ah mu ne ma dee nañ ma ne ko lam lay wax ni préfet ay ñi yëpp nekk fi ngeen mun a ma dee nañ ñii dañ keroog yàlla dimbali ñu cinq lañ dóor dagana keroog première fois lu ko équipe équipe bi keroog mooy première défaite am foofu ñu dóor ko cinq keroog la préfet bi taxaw na neexu bi neex Sénégal yéen a fi dàq football mais Lamine moom noo ndaanaan la ndaanaan la woon yàlla na ko yàlla fay yàlla na ko yàlla fay. amoon dal bëri woon jàmm. ku mu gis jàppee ko ni boppam tax caaroy gi yépp ñëw taxawu ko ci bisam ku mujj gi moom Mamadou Lamine Paye ñu koy ñaanal borom bi subhaanahu wa taala xare koy àjjanay firdawsi te teg loxo njaboot ak gim fi bàyyi. Armand mënuñu fàtte reeju neex ko yàlla sàmmal tabal ko àjja ja dem nag ñoo fi des war a bay ci tool mën nga jóg ci bët yi waaye mos a jóg ci xol yi laa sax ci yi rest in peace la rafet di la tàgg sa jëf yu nga fi def ba tey daa baat bu njëkk baat gu mujjo sant borom bi ñaan sur nous de tur def ban xef xol koy dem na dem na dem na na aha am la comme la buur baa bu démbay bu tey xolam jëfam du ma sa fay yée